le 8 décembre 2012 le 8 décembre 2020 booba ba léegi di juróom-ñetti at ci bi góor gu tedd ga Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ibnu Serigne kër si wuy jee boroomam ak léegi kan mooy Serigne Mansour si boroom saa maam nee na boroom daara yi boroom limousine bi boroom xam-xam bi nga xamante ni daal nañ ko miin loolu ci ëttu xam-xam muy waxtaane yonent bi loolu sabab na Sénégal dund ko mus a fàtte amal nanu ca xabroom ay ñaan wàcc kaamil ak mbokki taalibe kenn par kenn di fa ñëw di ziyaar si Serigne Mansour si borom daara ji góor gi ma nga dëkkoon ca Casamance wante itam mag ñuy leeralal diggante si Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ba mu ñëwee Casamance ngir fas yéene ubbi si jumaa ja nga xam ni doxoon na ci diggante joolaa yi ak soose si Isaaxa si soxo laa tudd sëriñ Mansour suma sëriñ la maa ngi sant yàlla na yàlla moo boole ak moom waaw man muy ñëw Casamance fa la ma fekk parce que dama dama doon jàngale ñi nekk fa principal fu ñu naan jembere ñu ñoo ko teeru woon wante a ah, sëriñ Mansour moom dam koy wax suma bokki Casamance sëriñ si ñu bëri yëpp waa Casamance sëriñ Mansour rek la ñu war a dem su bu ñu amee problème bu jafe seen biir moom kese moo ñëw lijjanti ndax benn sëriñ moo fa ne na problème boo xam ne moo am diggante soose yi ak joolaay te jéem naa ci lu nekk dama bëgg nga ñëw jàppale Serigne Mansour ñëw na lijjante ko ba mu féete boor te problème boobu bu tàkkoon Casamance yëpp xëjoon nañ te moom lijjante moo tax bu fekk bu reconnaissance war naa tax ku jógee Casamance ñëw ci Serigne Mansour ndax bu ñu amee problème moo ko lijjante góor gi moom dañu xamal ni Cheikh Seydi Mouhamadoul Mansour li mu def ci réew mi kenn dootu ko naatable ndax nit ñi tegal nañ ci seen bopp seenu bët ndax bëri na ñoo xam ni saa su weeru tabaski musaana teru moo daan yor seen kër rax ci dolli di yóbbu ay nit ngir ñu ziyaare ji sayyiduna muhammad borom daara yi de moom ku fi ñëw ci taaw rek mën nga wax ci moom ndax li mu doon def ci réew mi ñëpp ko xamoon bala koo mën a xam ñu ne weeru tabaski teru na ko defee weeru màkka jot koo gis rek day bëgg a jàkkaarloog sëñ Mansour saal bi li mu fees fees dama la yóbbu màkka doo wax dara eh dama lay yóbbu màkk nga ne ah papa tooy na waa lu sa looy dépassé yaa xam ñaari junni yaa xam junni yaa xam ñaar téeméer Touré konteel ma weer ñu konte weer ci dépasse jox la mu ne eh amee nga bor nga ne waaw ñaata nga ne nangam mu ne am demal fay bor kuy dem màkk du yore bor suñ mën soo def na loolu ay junniy junni ay doomu aadama weeru dem màkk bu jot dina yóbbu juróom fukki nit wala juróom bundu fukki nit te mbayam la leen di yóbboo li muy liggéey ci la yóbbu nit ñi musul yóbbu addiye ci doomu aadama ci xaalis kenn beneen bu dul poosam ñun ñi nga xam ne noo nekk ci loxoom ñëpp dem nañu màkk takkal nuy soxna may nuy kër yor suñu njaboot ñun man mii di wax ak yow place la ma yóbbu ma amee sama palaas teewul loxo mosul jóg ci man ak samay moroom donte ni sax seenub ànd ak boroom daara ji Serigne Mansour doonul woon lenn lu dul saa su nekk bu dee ànd ak ñoom daf leen di jàppe comme njaboot ba waral na sax ñoom taalibe yi la ëppoon lu muy àndal ke njabootu boppam gi nga xam ni ñoom la meññ ah moom Serigne Mansour ne borom njaboot la xam nga bu ñuy ànd ak moom ñun ñooy taalibe man ànd yàlla jàppale na ànd naa ak moom lu ëpp fanweeri ak wante moom taalibe yi la doon àndal wàcc ay doom loolu lu jafe la taalibe yi Serigne Cheikh mu nga gis lépp taalibe yaa ko yoroo ñoo doon nekk ak moom fu nekk guddi ak bëccëg waaw fa nekk bu nekk taalibe doon nekk xam nga bu mu demee ba nga am dar da ngay oo sa doom mais moom doomi jàmbur la doon àndal Sëriñ Mansour daal moom c'est-à-dire xam-xam foo oo jàpp rek mu xam jikko ah jàngale tabe lépp exceptionnel fenn fu nekk parce que fenn fu nekk foo daje ak moom rek da nga yaakaar fii moom la mu ne moom moo tax ba mu demee dañoo mun ta xëyu di jooy de waaye xol yi jooy nañ fii duñu fàtte mën soor mukk toujours dañ koy ñaanal billaahi wallaahi ma nga ma fekk sa saalum maa nag sama doom bu ma tuddee woon soxnaam muy si Sy Mansour benn waaye ñëw fekk ma ca saal ba ne ma yow yow saw yëgoone li xew xanaa ma ne ko lu xew xalifa bi lañ ne dem na ma ne ko yaa nangamtaan saaga sax laa ko def ndax man ma woon sago ci sëñ Mansour moom sax xam na ak njaboot gi yëpp nag ndax sëñ Mansour kuy gor doo ko fàtte koo xam ne lu baax la bëgg lu baax la lay defal soxna wodduñu yóbbu ñu màkk may ñuy kër tabaxal ñu ko loolu la nit di jëriñ te da ko daa wax da daa wax ne taaliba seex bien fii bien fële gis nga ko nun ñii koo ci gis day solu rek fu ñu toll dañu war di ñaanal boroom daara ji Seex Seydi Mouhamadul Mansour ndax ñoom day bëri na lu mu participer ci seenug dund daan leen jàppale loolu wutal leen liggéey rax ci dolli itam lépp lu nekk ci ñoom mu ko daan def ci ñoom kon nak ñu fu ñu toll dañ koy ñaanal yàlla njaboot gi yàlla def ci barke yal na leen yàlla sàmm góor ak jigéen man yàlla dimbali na ma njaboot gépp samay xarit la ñu góor ñeeg ñu jigéen ak maa ñi nekk ndax sëñ Mansour kenn mënu koo fay xanaa yàlla kon nag ku ma laaj ci sëñ Mansour dinaa sawar ndax man ab sawar dong laa wat waaye daf maa bëggal boppam soxna Fass si Mansour mii la ma affecté ma daa ko dawalal te yóbbu na ma Dakar may liggéey service laa yoroon weer wu dee ñu fay ma ba fii ñu ko waxe weer wu ma fay ko sama passion loolu ko ko ma ko def defal yàlla moom la kon nag yal na ko yàlla yokki leeram njaboot gi yal na leen yàlla dimbali yal na leen yàlla boole yal na leen yàlla may wér ñoom ñëpp nag góor ak jigéen di xëy saa su nekk di wax ci boroom daara ji bu nu ko dee def du ñu fi jóge wante itam dañ ci doon baaxantal rek ngir fàttali nit ñi borom daara ji Cheikh Seydil Mouhamadul Mansour reportage Amadou Makhtar Mbow pour la rajo Dabakh FM